maa ngi tontu tontu boo xam ne kenn rek moo ko moom mooy ki ko waxoon waaye képp ku ko waxut bokkoo ci wax ji jëmalewuma ko ci ñëpp ci ñenn rek la jëm mooy ñi ko waxoon ak ñi ko gëmoon denn wax ne Ousmane sonk képp ku ko songu sànku yàlla mi moom jaam ñi bu nattoo jaamam nu mu ko neexee ñu ne àqi Ousmane sonk moo ko dal yàlla day dogal ci jaam ñu ne ñaw daf ko mérito daf ko moy fàtte ne ne yàlla mooy dogal man mii suma jëmmi bopp ñu toj suma oto am ñenn ñu wax ne daf ma moy den ma waroon a rey am ñu exagéré ba jël suma numéro di ma saaga ndey te ñu séqoon ay kóllëre yu rafet yàlla dogal ma dem kaso di doom ni ñépp nag di jëkkër di bàyyi ñu ne daf ma moy am ku yaayam feebar mu bëgg koo faj mu tëkko ñu ne da koo moy àq Sonko moo ko moo tax ndeyam feebar am ku fi am problème ak jigéen tëdd ci kaso ñu ne daf ko moy àq Sonko la dem naa sax tribunal benn waaye jàkkaarloog man ne ma bu ngeen bàyyiwut Sonko du ngeen gëj di ñëw ci tribunal bi may laajte question nag tey ni ma signé woon mandat dépôt noonu la Sonko signé mandat dépôt ma dem kaso mu dem kaso tey may laajte nag avec seen sincérité yéen ñi waxoon ne kaso gi daf maa mooy yéen ñi ci kontaanoon doon jubile ak yeneen natt yu daloon ay nit yoo xam ne ñun ñépp jaamu yàlla leen mooy suñ buur tey maa ngi leen di laaj Sonko fam nekk fële tey tëdd fa te du tag jabar du tag doom tëdd ci kaso gi àq kan moo ko dal question la rek ku am xam-xam nga tontu ku amul xam-xam comme d'habitude mën na wane boppam mais question rek laa posé xam nga lu ma ciy jàngale mooy nen xam ne fii yàlla rek moo fi ne mooy buuri ñépp te mooy dogal fii kenn feebaru fi ba saxe yeneen yàlla ayoba dafa feebaroon ba jëmmam saxe muy for sax yi di lekk ne kullu mimma razaqnaakum lekk leen leen yàlla wërsëgal muy suma jëm fii nit ñi am neen doom muy dund yonent yàlla muhammad bi mu solo ba tus nga lu ba rafet di julli ji tabaski la doomam bi mu tuddee maamam ibrahim génn àddina fii dóor neen fi nit ñu koy ñaawal imaamu malik den koo dóor ba mënatuta a saw mi moo tax du dugg ci jumaa yonentu sallallahu alayhi wa sallam te kenn du moom ci ngir wi ñu dóor ko ba loxoom damm moo tax mën a tuta di yor ay loxoom bés bi nag mënutoon a ñàkk du damaa sawar dama kontaan wala dama ko ko yéene déedéet ndax man gëm naa ne yàllaay suma borom te am na natt yu des suma kanam fii may defee vidéo bi bala ma pare sax yàlla mën naa jël suma bakkan bu ko neexee safara mën na lakk suma kër bu ko neexee mën naa dee ci géej wala ci accident bu ko neexee moom a moom waaye damay delloowaat xeli nit ñi nga xam ne jëlon neen benn way def ko doomu yalla wala sax lu ko raw def ko yalla ba ne ko songu sank tay nit koku mu ngi garda vie mu weesu garda vie signé mandat de dépôt ñu jangat jangate ko tak ko niñ ma takké won ñu jangat jangate ko tak ko niñ ma takké won yobbu ko kasso nañu wat ci yalla may ñi ñu bëggante te yërëmante ñaata nit ñoo toj alalu jàmbur ci projet Pastef ñaata nit ñoo sàcc alalu jàmbur ci projet Pastef ñaata mbokk mooy yàqu ci projet Pastef ñaata ànd mooy yàqu ci projet Pastef ñaata sëy moo tas ci projet Pastef tey Pastef boobu tas na waaye yàlla ak jaam ñi ñu ngi fi tasut àdduna mu ngi fi mbokk gang fi xaritoo gang fi politique ku ne am nga droit faral ku la neex waaye warta yàqu mbokk politique du géewu xeex ak saaga ak nono wante géewu idéologie la ku la idéem doy rek ngay topp bés bii mënutoon a ñàkk de te ngeen la waaye na ngeen ma dimbale tontu ak kan moo dal sonk loolu dama ko bëgg xam na ngeen dal di fàttali ndawi Sénégal ne depuis deux mille vingt et ba tey am nañu feebar manqué neen mëtutu nit seen àddina kenn mësut leen a dimbali am nañu doonoon ay soutien de famille gëm xeex bi seen yaay yi kenn taxawut leen am na sa ñu mujj di saraxu ci mbedd yi képp ko bëgg génn respectel naa la sa bëgg-bëgg waaye na nga sóoraale ndax lu lay génnee jar na ko ndax mët na ko ndax amul benn lu ëpp importance lu la waroon a génne te génnewut la sonk nga bëgg moo la ko jaral wala justice ngay xeex lii yépp na nga toog yéene ko laaj ko sa bopp boo amee réponse bi demal ku fi dee yàlla ngay dajal kenn du dajee keneen kurut yàlla ndax moom rek mooy buur te ñoo ko waxoon malik yow mi diin ñoo ko ci tegal iyyaka na'budu waaye wa iyyaka nasta'inu waaye daal neen bàyyi bu yàlla nattoo nit ñu manqué ba fàtte ne xarit yàlla rek la yàlla di nattu way ñu japp ne ak hmm. kenn ko dal tay même situation buma nekkon teud ci kasso ba ngeen ak son ko ma dal tay mom teud na man maa ngi suma néeg taal suma kilim yalla mi ma tek ci kilim bi moma tegon dem ci kasso gi mo tegon euh, son ko ci kilim bi yalla mom moko ko tay ci kasso gi ko gëm rek ta doyloo ko wax ji nak du neex da am na ñoo dañu ñoo duñu am xalaat duñu am xam-xam mënu ñoo tontu saaga ndey rek c'est pas grave euh, nit mom bu amul idée bu mu tontoo sa wax dabee la saaga dangay ngay xam ne sa ndey gënoon ndeyam te ku sa ndey mën ndeyam doom ji bu màggee mooy mën doom ji kon daal maa ngi am mbégte bi yàlla indee beneen jàngat buy wane ne moom rek mooy biir buur loolu moom bég naa ci lool moom euh, du ma doon hypocrite nag naan maa ngi koy naqarloo na yàlla nangam déedéet dama naan yàlla ñu yàlla xamloo yàlla te ñu bëgg ko te doyloo ko te xam ne moom képp moo fi ne wax ji nak bu la yow la rek bu la naqaree yow la su fekkee man dang ma sopp jërëjëf <laughs> boo ma bañé ñaanal ma yalla té xamné ne ku dul yalla mënul ci lenn nak wa salaamu alaykum wa rahmatullah ma ngi tontu tontu bo xamné kenn rek moo mom moy kiko ko waxoon waaye képp ku ko waxut bokkoo ci wax ji jëmalewuma ko ci ñëpp ci ñenn rek la jëm moy ñiko ko waxoon ak ñiko den wax ne Ousmane sonk képp ku ko songu sànku yàlla mi moom jaam ñi bu nattoo jaamam nu mu ko neexee ñu ne àqi usmaan sonk moo ko dal yàlla day dogal ci jaam ñu ne ñaw daf ko mérito daf ko moy fàtte ne yàlla mooy dogal man mii suma jëmmi bopp ñu toj suma oto am ñenn ñu wax ne daf maa moy den ma waroon a rey am ñu exagéré ba jël suma numéro di ma saaga ndey te ñu séqoon ay kóllëre yu rafet yàlla dogal ma dem kaso di doom ni ñépp nag di jëkkër di bàyyi ñu ne daf ma moy am ku yaayam feebar mu bugg koo faj mu tëkko ñu ne da ko moy àq sonk moo ko dal moo tax ndeyam feebar am ku fi am problème ak jigéen tëdd ci kaso ñu ne daf ko moy àq sonk la dem naa sax tribunal benn waaye jàkkaarloog man ne ma bu ngeen bàyyiwul Sonko du ngeen digg di ñëw ci tirbinaal bi may laajte question nag tey ni ma signé woon mandat dépôt noonu la Sonko signé mandat dépôt ma dem kaso mu dem kaso tey may laajte nag avec toute sincérité yéen ñi waxoon ne kaso gi daf maa mooy yéen ñi ci kontaan noonu doon jubile ak yeneen natt yu daloon ay nit yoo xam ne ñun ñëpp jaamu yàlla leen mooy suñ buur tey maa ngi leen di laaj Sonko fam nekk fële tey tëdd fa te du ak jabar tëddut tag doom tëdd ci kaso gi àq kan moo ko dal question la rek ku am xam-xam nga tontu ku amul xam-xam comme d'habitude mën na wane boppam mais question rek laa posé xam nga lu ma ciy jàngale mooy nen xam ne fii yàlla rek moo fi ne mooy buuri ñépp te mooy dogal fii kenn feebaru fi ba saxe yonent yàlla ayuba dafa feebaroon ba jëmmam saxe muy for sax yi di lekk ne kullu mimma razaqnaakum lekk leen leen yàlla wërsëgal muy suma jëmm fii nit ñi am neen doom muy dund yonent yàlla muhammad bi mu solo ba tus nga lu ba rafet di julli ji tabaski la doomam bi mu tuddee maamam ibrahim génn àddina fii dóor neen fi nit ñu koy ñaawal imaamu malik den koo dóor ba mën a tuta saw mi moo tax du dugg ci jumaa yonentu sallallahu alayhi wa te kenn du moom ci ngir wi ñu dóor ko ba loxoom damm moo tax mën a tuta xaddu di yor ay loxoom bés bi nag mënutoon a ñàkk du dama sawar dama kontaan wala dama ko ko yéene déedéet ndax man gëm naa ne yàllaay suma borom te am na natt yu des ci suma kanam fii may defee vidéo bi bala maa pare sax yàlla mën naa jël suma bakkan bu ko neexee safara mën na lakk suma kër bu ko neexee mën naa dee ci géej wala ci accident bu ko neexee mooma moom waaye damay delloowaat xeli nit ñi nga xam ne jëloon neen benn waaye def ko doomu yàlla wala sax lu ko raw def ko yàlla ba ne ko songu sànk tey nit kooku mu ngi garda vie mu weesu garda vie mandat dépôt ñu jangat jangate ko takk ko niñ ma takkee woon ñu jangat jangate ko takk ko niñ ma takkee woon yóbbu ko kaso nañu delloowaat ci yàlla may ñi ñu bëggante te yërëmante ñaata nit ñoo toj alalu jàmbur ci projet Pastef ñaata nit ñoo sàcc alalu jàmbur ci projet Pastef ñaata mbokk mooy yàqu ci projet Pastef ñaata ànd mooy yàqu ci projet Pastef ñaata sëy moo tas ci projet Pastef tey Pastef boobu tas na waye yalla ak jam ñi ñu fi tassut aduna mu fi mbokk gang fi xarito gang fi politique ku ne am nga droit faral kula neex waaye warta yaq mbokk politique du geewu xex ak saga ak nono wante geewu ideologila. la kula idem do rek ngay bes bi mënu to a ñak de ta ngeen la way na ngeen ma dimbalé tontuma ak kan mo dal sonk lolou dama ko bëgg xam na ngeen dal di fàttali ndawi Sénégal ne depuis deux mille vingt et ba tey am nañu feebar manqué neen mëtatu nit seen àddina kenn mësut leen a dimbali. am nañu doonoon ay soutien de famille gëm xeex bi seen yaay yi kenn taxawut leen am na sa ñu mujj di saraxu ci mbedd yi képp ko bëgg a génn respecté naa la sa bëgg-bëgg waaye na nga sóoraale ndax lu lay génnee jar na ko ndax mët na ko. ndax amul ben lu ëpp importance lu la waroon a génne te génnewut la sonko nga bëgg moo la ko jaral wala justice ngay xeex lii yépp na nga toog yéene ko laaj ko sa bopp boo amee réponse bi demal ku fi dee yàlla ngay dajal kenn du dajal. keneen kurut yàlla ndax moom rek mooy buur te ñoo ko waxoon malik yow mi diin ci tegal iyaaka naabudu wa iyaaka nastainu waaye daal neen bàyyi bu yàlla nattoo nit ñu manki ba fàtte xarit yàlla rek la yàlla di nattu waaye ñu jàpp ne ak kenn ko dal tey même situation bu ma nekkoon tëdd ci kaso ba ngeen ne ak ko ma dal tey moom tëdd na man maa ngi suma nekk taal suma kilim yàlla mi ma teg ci kilim bi moo ma tegoon démb ci kaso gi moo tegoon kaso sonko ci kilim bi yàlla moom moo ko tegaat tey ci kaso gi nañ ko gëm rek te doy ko wax ji nag du neex da am na ñoo xam ne dañu ñëw ñu am xalaat ñu am xam-xam mënuñoo tontu saaga ndey rek c'est pas grave euh, nit moom bu amul idée bu mu tontoo sa wax dabee la saaga da ngay xam ne sa ndey gënoon ndeyam te ku sa ndey mën ndeyam doom ji bu màggee mooy mën doom ji kon daal maa ngi am mbégte bi yàlla indee beneen jàngat buy wane ne moom rek mooy biir buur loolu moom bég naa ci lool moom euh, du ma doon hypocrite nag naan maa ngi koy naqarloo na yàlla nangam déedéet dama naan yàlla ñu yàlla xamloo yàlla te ñu bëgg ko te doyloo ko te xam ne moom képp moo fi ne wax ji nak bu la nexé yow la rek bu la naxaré yow la su féké man dang ma sopp jërëjëf bu ma bañé ñaanal ma yalla té xamné ku dul yalla mënul ci jambi lenn nak wa salaamu alaykum wa rahmatullah abonnez-vous Thiowli Sénégal abonnel ci Thiowli Sénégal abonnez-vous Thiowli Sénégal abonnez-vous Thiowli Sénégal abonnez-vous Thiowli Sénégal ndax man li ma soxla ci xibaar yu wér wo woo Thiowli Sénégal